réalité de la couture. asalaamaaleykum mbokk yi ñu seetaan fii ci seen émission réalité de la fii ci LCS fii ci Sénégal TV mbokk yi tey ñu ñëwoon seet si benn ndaanaan Arafat mu ànd la tigresse bi ma ñëwee nag dama ko bett ci biir këram yëguma ànd fu ne dugg na fa ànd fu ne seet naa ko waaye finalement trouvé naa ko bi ñu ko gisee dégg naa entraîneur naka day yee devant moi yaay mi ko yëg ko moom ah damay naaw yooyu yëpp xam nga mi ci biir émission bi Anta nuyu naa la. fay naa la maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ñu seetaan di leen jaajëfal nuyu ak di nuyu ñëpp di la nuyu aussi nuyu seen partenaire sonn ngeen trop aussi pour pour am émission bi sonn trop aussi ci man yàlla ngeen aussi xam nga maa ngi jégalu maa ngi jégalu baax aussi ci loolu ay nuyu Sénégal yooyu yëpp ñu képp ku ma xam ne sama client sama xarit sama am ci macha allah Anta am na lu ci teg muy la tigresse luy la tigresse <laughs> la tigresse dans boo ma koy laajte euh, dinaa ci sawar tontu parce que nekkul tur boo xam ne dama ko jël nii rek dama ko dama ko jël nii rek non non la tigresse dama ko mu dégg di ma nekk nit may def primaire. kon tout enfance la. tout enfance la nit primaire donc dama nekk Grand Yoff dëkk Arafat. Mhm. Euh, juddoo Arafat yaru Arafat màggee Arafat. jàngee sa lépp Arafat la. sama lépp Arafat la Grand Yoff ma jàngee Camp Leclerc donc Camp Leclerc ñun Arafat dañ doon dem jàng foofu. booy xool euh, ñu fa daan jàngee élèves yeeg yooyu seen parents yi ak ñun euh, duñu benn man lu dul ko daan bañ ci sa bopp wala. maa ngi bañ a bëri sama bopp. ci comme ci comme ni ko école bi. ko lu muy def que dañ ñoo sous-estimé woon suñu foofu tuuti affaire affaire élève daal suñu xale. donc fii la dëkk kii fii la dëkk kii fii la ci bi doon dañ ma woon woowee ci école bi mm-hmm. mais dañ ko doon bind ci kayit souvenir xam nga fin d'année dañ doon def cahier de souvenir ku ne ñu la léegi man su ma su ma bindee signé ma leen la tigresse. ah la tigresse danaan signé. waaw ah. mu doon signature. waaw ah, la tigresse. waaw ah. xëy si woon mu xëy si woon doon nag man damay damay téye samay mm-hmm. bi comme sama yaay bi may tooñee naa ma <laughs> dama da ngay gën. c' est vrai c' est parce que Anta man ma li ma a neex ci Anta mm-hmm. mooy Anta turam bi ma ko xamee matu xam.

ndax ñëw mu ngi nekk moo xam ne eh, nekk dafa nekk loo xam ne lu yàgg la ci man aussi may somb di ma nekk xale. sama tey bi ma daan ñëw Cheikh Faye mooy ki may wax tout le temps rek ki nekk Paris. ndeysaan Cheikh sama sama maa ngi koy nuyu de bi ma demee Paris dafa sonn ci man foofu vraiment lu nekk defal ma ko fii tam dafa dem ba man ma fay ñëw. ma fay ñëw daaw ma fay dama daan ñëw war a jàngi toog atelier yi di di defar di def lii lépp lu ma mos maa koy créé. damay ñëw na nga Cheikh nii nga may defal lii laa bëgg lii laa bëgg mu dagg ñëw ñaw ñu nekk may nekk foofu vraiment loolu mu nekk sa parcours si diggante sa wàllu ñaw ak sa gis euh, dama for benn affaire ci looy béy nee ma daf ma touché moo tax euh, ma dama koy posé te ndax jigéen bu demee jàkk ndax ci réalité dañ wax yoo xam ne dañ ko xam ci moom dañ koy posé ngeen dégg anta da daan raxas jàkkay Arafat mais bu raxas yi ba génn dafa am benn meer bu daan jaay foofu fonde xam naa ne jiw. waaw loolu lii. nañ ko xoolal jaay ko fonde boobu daal di ko xool def ci affaire bi gaaw. mais ana loolu mën naa waxtaan ci jàkk yi ak fonde bi. <laughs> jàkk bi suñu koñ la nekk donc man mais suñu waa koñ dañ maa bëgg. waaw waaw sama quartier dañ maa bëgg. damaa fonk soxla ma teg la maa leen bëgg sama xol bëgg fi ma juddoo jàkka bi ñoom mairie ñoo koy raxas ñoom yaa am ñoom yaa awa sama mairie ñoo koy raxas donc man ma nekk jeune nekk xale nekk ci koñ bi may jàngi chaque jour su may xëy damay gis jàkka bi mairie di génn dem jugee fa ay ay 11 ma ñëw ci ya, ami ma ko yaa ami mu ne ma ko lu bi di génn ak mu ma jàkk bi koy raxas parce que vendredi ma ko buñ ko ma ne ko buñ koy raxasati ba heure lañ taxaw mu sëtt lañu yeewul te bu ñuy yeewu yeema ma ne ko di nga ko bien sûr après ma commencé dem parce que li li xale ko. la réalité de la culture. ma toog yaayam fii ci sama ndeyjoor bu waxtaan ak ci jaar-jaar ànd ci yaay Maestra. ba ñu fi moom jàmm. yaay booy tey ñu ñëwoon seet sa doom. Euh, muy Anta. ñu euh, yàgg di jàlloon ci wàllu ñam. tey ñu tourné fi nag seet si ko. bi ñu fi ñëwee fekk la fi. wax dëgg yàlla pour waxtaan ak yow ci Anta ndax nee na nit mën naa xam boppam. waaye nag ñu gën a xam boppam yaay. ndax yaay bi xam ne moo ko gën indi ko fii moom moo la gën a mën a wax ci doomam. yaay kan mooy maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen gërëm di leen sant di sant suma bokkaale yëpp yëpp daal di gërëm ñëpp di sant ñëpp. Anta la nekk doom boo xam ne ku yërëm ay waajuram ndax boo gisee ñu test si ay waajuram a tax. moom ku yërëm ay waajuram yërëm ay rakkam. kii bu jotee comme maanaam dara bu amee nii du am jàmm comme ay. fête des mères moom ko njëkk jox Arafat. pañe weeru koor moom ko njëkk jox Arafat. ba mu mel ni pañe weeru koor boobu amul daal sax. day def tout bu weeru koor jotee nii bu ma indi pañe. ñu koy ràññee man bu ñëwee sama damay xuloo moom ne ko di sa suma la waroo ko def. parce que man maa la war a def parce que moo koy defal xëy na boobu man maa ngi liggéey waaw mais dama ko yore. dafa yay jàng vee si moom waaw rayante vee si moom parce que tam dama doon bañ ay taxawaaloo ñu koy dégg fenn feeg si moom trop sonn nag si moom loolu liggéey ko fayal jàng mu di dugg si commerce di ko fayal jàng su ma indee sax su ma jógee voyage su ma ñëwee day tànn ñaari yére ba ñetti yére ko defee ñu naan li mu jël dafa ëpp ak yooyu mayoon yére baa nga ko mu jël parce que lu mu bu génn dem ñaan ko feneen comme man maa ngi liggéey rek na dem ba xool si man moom tam ba commencé di liggéey comme man moo tax ma koy ubbi machine téye bi ma koy ubbi mas mas grand yi platon di ko ubbi mas alpha monument platon di ko ubbi nekk ñaari machine ma ne ko toogal fii di liggéey mu ne ma ah fan ko ñaar damay continuer sama jàng damay doon defee formation. Anta moom def ko ci jaay.

moom ñun ñoo jàkkaarloo woon fii fu ma doon jaay parce que macha allah moom tànte jàkkaarloo ko léegi mu ne ma comme da ngay ñëw di indi si man ay ñaw ma lay ñaw bu koy yóbbu di jaay ubbi léegi dañuy ànd mu jënd laay machine ba ubbi man ko kan ma koy gérer mu ma loolu bàyyi ant di fa toog bi kii ma ne ko déedéet parce que ant day jàng jàngam pareelu mu ne ma waaye mun na boole jàng bee kii ma ne ko déedéet loolu ko mën léegi nag jour bu ma àndee sa machine bi ñëw teg léegi moom si laa ko woo man ko léegi de machine bi mënu ma ko gérer parce que maa ngi yore place. bi nga ko woowee wax dëgg la wax tey boo kaay waxtaan boo ko bëggoon waxtaan nga jox ko place bi lan lan tey benn réaction am foofu ci lu koo xam ni doon na jàng. xëy na pareegul wala pare na xëy suba ni ko machine yaa ngi nii ko nga yor. te si kontaan sax parce que premier jour moo koy def moom danga may nax ma daanaka naxu ma la kaay naa ne marché ñu naan ne marché ñu naan ne marché ak มันก็ไม่ใช่เ่นียันไม่เลยนะต้องยุติมันตัวมันก็มีความสุาสุดรู้มั้ยความสุขเนี่ยว่าสุขสุขสุขลาวุติอินมันตกฟ้าไปดีงามดีงามมาสุขมีอะไรก็มีอะไรมามาสิขแล้วก็ขัดนุ่มบดูตัวก็ปองสมัยขัดยังมีเฟกอัตีด้วยแต่มาสิขคือนอนนุ่มบดูตัวมันก็ยิ่งตกมันบ่ายบ่ายดิสกันมันตกปุ๊บมันตกอันนั้นก็เจียว่ามันก็บ่ายดิสกันมันก็มา mu ne ma déedéet bàyyi rek ñu toxu parce que fii léegi nekkatul sama place ma woo la di place bu baax place bu mag parce que ku nekk moom moo la fay fekk mu ah ba kon baax na see ñëw di ut di ut ba ne ma am na sama benn xarit mu utal HLM Grand Yoff. ma ne ko ah sori fi mu fii waaw si rond-point mairie bi ma ne foofu soriwul mu ne ma soriwul parce que nit ñi dañ la fa fekk foo nekk rek sa ba bi ñuy dem ba ñuy jóg yaa ngi koy nga baal ma bi ñuy jóg ba newoo ko ndax xam nga si Sénégal lañ ne mm-hmm. fii saa yu sa doon jugee ñu dem fenn da nga ne xaaral ma xool ko wala xaaral ma xool foofu ndax baax na ndax kilifa xam nga dafa baax tout le temps di jiitu xale yi toog ci ginnaaw est-ce que ànd sax yéen a ànd waaw parce que dafa ñëw na kaay xool ma ñëw xool moom tam bu def loo xam ne tam ump na ma dëgg la waaw côté boobu moom naw naa ko si lu muy def muy jiital ba pare wala mu laaj ma su ma melee sax danaa ak ah, kon bàyyi ko wala mu ne baal ma kon bàyyi naa ko bu ma ñëwee jiital bu ñëw xool ko man ko appareil bi baax na waaye est ce am moom ma ah, nañ dem bi nga wax bi nga wax am yaay nga baal na que ci côté séeraay bi ci côté jël bi wala yooyu nga doon xalaat. mu ne ma dama liggéey rek kuy liggéey du ragal. mu dénk lépp liggéey xale bu ndaw la te liggéey bu nekk liggéey naa bu nekk ba léegi nii façon liggéey bu nekk. liggéey naa bàyyi ma. ndax njaboot bu nekk waaw ndax njaboot te boo xoolee sax aw ma njaboot bu bëri daal mais sama yaay ak sama papa. Ah. man nee naa comme lu ma defal rek c'est forcé te du ma defal sama yaay. defal defal sama ba sama papa génn àdduna ma dese sama yaay. ci laa ko ne kon doom lu ma defal. Hmm, ah, fii dafa nekk benn moment boo xam ne da koy fàttali lu bëri bokk la sax nit sax nit réalité la. kon seen de la culture lii la leen di indil lii bëgg fàttali nit ki période yi nga xam ne dundoon na ko ay wajuram ak li mu cofeel gi mu ci njaboot yaay dëgg yàlla euh, ñun ay xale lañu ñu gis sa mais xëy na ay rongoñ ñu mbégteloo ay fàttaliku la. la réalité de la culture. mais a metti ci ànd ci ci liggéeyam loo xam ne toog nga gis ni ko bu démb doon tey doo dugg ci ñëw. ndax métti ñëw dafa métti. dafa métti trop sax ñëw ne ma dañ ko indil ay àllay foofu. su mm-hmm. ko defal yow am ndax di ko xeex affaire yi tax la. waaw am na ci yooyu am na si. te mm-hmm. xale la. Mm-hmm. après ma ne ko yow man demoon naa ba temps yële paase dama ne ko tëjal. Ah, nga bàyyi waaw nga bàyyi. nga dugg ba commerce comme man mënu ma déedéet dugg naa ba pare. so noonu moo tax may raay la. foofu ku la wut dama bàyyi bàyyi bàyyi wu ma. waaw foofu ku la wut dama si sax nee naa la ko comme ni nga dama parce que nee naa la bàyyi lii dara dara jarul ko. des fois daf koy feebar ñu koy def yoo xam ne daf lay leer ne lii ay def-def la mais yàlla rek parce fu ma waxee noonu fu ma nekk yàllaa fi nekk te moom du ragal dara xale la mais du ragal. am fit waaw am fit soo waxee noonu ma ragal. parce que liggéey liggéey laay def alalu jàmm soxlawu ko benn sa loolu moom ndax ma si doon alalu jàmm soxlawu ko ñu def loo xamante ne yóbbu ma ko su ma tëddee day tëdd su ma yeewoo day yeewu su ma ko gis muy dem génn di baali ci wala daal te man tàggu ma te buy baali ci sax événement sax mu ko naan xool sa morom yëpp nii ñu solo na ñu dem di baali yooyu doo dem ñu lii mën na sol wala. parce que yow dama koy dëggal ndax émission bi réalité de la couture ba tey yéen a ngi ci biir. bi ma ñëwee fekk yaayam moom woon dama fi ñëw Anta tamit yëgul fi ñëw mais moom moo ñu tijji te moo ñu yeewal Anta mi nga xam ne tey moom la fekk si mais yaay Anta am lu bëri loo xam ne parce que léegi da na lu bëri loo xam ne def naa ko enquête ci moom atelier jot na ci a ci yow la jógee mm-hmm. mais nga tey Sénégal xamuñu dañuy xëy xëy gis nit samp mm-hmm. Anta xëy na xëy samp atelier te yaa ko jàppale. kon tey baax na nit xam ko te loolu xam nañ ko. Hmm. mais Anta damay dégg ci lu ci moom ay ay ay diggante ma monsieur le maire. Hmm. damay dégg kon nee nga Anta lu muy def ko waxtaan ak yow. Hmm. te naa ci wéy béy ci mbedd mi ñenn ñi wax nañ ni ma si léegi lañu xamante ñenn ñi wax nañ ma avant muy nekk maire lañu xamante. yaa ngi la ci mën a mën a leeral yaay. waaw yaa ngi ko maire bi ko baax la. parce que bu ñu xamanteeg Anta boobu Anta xale la moom xale la moom boobu jeune la sax parce que moom ak Anta mais jabaram bàjjal ñaareelam bàjjal boobu xaritu Anta la moom Anta ñoom bokkoon zone foofu su nit di wax rek dana leen di bàyyi si biir. waaw waaw ñu leeral ko parce que monsieur le maire soo xoolee man yaayam laa parce que rokk yaayam laa parce que yaayam sama sama mag la parce que yaayam ak sama mag bu jigéen aram ñoom ñooy ànd. donc monsieur le maire ba tey soo xoolee yaay sax la may woowee maire ma woowee mukk sama tur xam na lu ma ko bàyyi bëriwul ya ma woowee. yaay waaw ñaan laa mais moom soo xoolee xar Anta la boobu doomu dara boobu doomu dara mairie bi sa nekk am na boo xoolee ba monsieur le maire ba muy fàll man foo soo gisee man nga jàppale monsieur le maire man Anta moo tax parce que am ku dugg sa doom bu bëgg. ah bëgg ko voilà moo tax man ma jàppale monsieur mu maire mais monsieur le maire Anta jigéenam la rakkam la. sëram la waaw sëram la. parce que man tamit yaay yaayu monsieur le laa ma waral monsieur le maire tamit ba mu ñëwee ne ma dama bëgg nga jàppale ma si côté mairie bi ma ne ko loolu am benn problème. dinaa si waaw man Ablaye laa féete mais yow loo ma woo ma ñëw fekk si la parce que da nga da sama doom kon man tamit boo bëggee sama doom man tamit dama lay jàppale. mais bàjjen ja bàjjen jabaram ñaareel la kooku xaritu Anta kooku yàgg naa ko xam bu yàgg Anta di koy gis suñu kër. kon nekk xarit Anta. kon yaay di leer na mbokk yi seetaan kii di wax ci diggante monsieur le maire ak Anta. nit ñi nga xam ne xamuñu tey boo leen déggee lii ci diggante Anta ak monsieur le maire lii moo doon seen diggante. démb la woon tey soo ko léegi lan nga a mën mu veillé si liggéeyam. gën cee jàpp bañ déglu waa jàpp si bu baax bañ déglu waxuñu waxuñu nii. wax déglu waxu noonu bi waaw xarit bi moo am ñi nga xam ne ku koy jàppale jàpp sànq boo xoolee sax man ñi ko gën jàppale ñoo xam ne bu ma nee sax xam keroog si kii yam di défilé bi am na mag maire yu ñëw am nañu faran sama kër moo xam ne xaw ma leen jour boobu laa leen mos a gis xam ne xale bu ndaw jaral la nga bàyyi sa yitte fanaan ak moom ba fajar ba ñëw tëdd kër. gunge ko waaw gunge ko. waaw man koy jël di ko sant. Mm-hmm. waaw di leen gërëm yéen tamit ndax li ngeen def nii coono la li ngeen ne ba tey am ngeen jàng te moom waxuma woon dara sama nii yëngu ma ko. daf maa bett waaye yëguloo ko. loolu moo ci suñu bette ndax bettaate bi. waaw li ñu ciy def moo ñu amal solo ndax dañu wax réalité. Ah. bëgg ñu ñëw fekk ñu di ñu woo mu defaru maquillé wu sonn dem def ay yoo xam ne bokk ci moo tax ñu mu naturel mm. ndax lii ngeen di dund lii mooy naturel bi lii mooy réalité bi fekk nañ leen toog tarax laa yu musoo malgré nii macha allah yaa ngi yaa ngi rafet <laughs> def yëf yu borom mais yaa jaajëfal naa la sant naa la bu baax a baax kon mbokk yi yéen ci woon seen émission réalité de la couture réalité de la couture tey lii la leen indiwoon ci mbokk yi ñu seetaan yéen ñi ko gisandoo dem nañ ci kaw yee Anta di préparer pour dem Arafat mais balaa ñu dem Arafat Anta dafa bëgg nuyoo ak ay dëkkandoom ñu àgg nuyoo dëkkandoo yi. ku baax la xam nañ ko bu yàgg li xam ci moom it baax daal li xam ci moom. waaw ah, gis nañ itam ku tee boppam la. loolu nag man bu ko xale nekkee rek bëgg naa ko waaw man daal loolu laa gis ci moom moom laa ko mën seede ah di ko ñaanal nag li muy def mu réussir ci bu baax a baax a baax baax nu mu ko bëggee daal mu doy mu mel noonu rek waaw boobu daal nu mu ko bëggee ci kaw daal mu toll ko rek. Euh, man kay li ma koy ñaanal toujours loolu laay ñaanal ku ne <laughs> avancé rek. jërëjëf waaw ci kanam rek waa Anta ñu ngi ci yoonu Arafat nii fas yéene jëm fi nga xam ni da nga ni munoo ko munoo def émission te yàlla def ni àggoo fa te demoo fa ndax ñooñu nga am ñooñu ngay tiitaroo fa nga juddoo fa nga màggee tey lan nga yëg ci émission bi ngay def nii fas yéene koo biir Arafat waxtaan ak ñoom. Ah, bi ne mais euh, li ma ci neex rek mooy li ngeen li war a dem sama koñ. laa juddoo foofu laa magge ba tey ba tey ba mel lu ma mel war sama yaay sama maam. ndeysaan fekk fa say xarit ak sama tante fekk fa say ami d'enfance yi. waaw dina ma neex torop. torop ma neex kon loolu tey neex na la ci ci émission bi. émission bi c'est vrai daf la bett waaye dafa mel ni yow mënuñu la. ndax lu <laughs> dee dee dee yaa ngi ci yëngu yaa ngi ci yaa ngi ñuy wan ne ànd na nga ñëw ñun à 100 pour cent pour def ak émission bi. loolu lañ ci bëgg réalité ndax nit amul dara lu démb mm. ñun dañoo jël euh, émission bi réalité de la couture yóbbu ko démb waaye ci biir démb bi dañ leen wanaan tamit lan la tailleur bi di dund ak ñooñam nan la tailleur bi di dundee ak yaayam nan la tailleur bi di dundee ñi nga xam ne ñooy am di jàmm kon ñu fas yéene àgg nii Arafat fekk fa say ñoñ say xarit enfance ñëpp ci biir macha allah ñu war a waxtaan ak ñoom mais xam naa ne tey bokk na ci jour yi nga gën a kontaan. ci am am ci mbégte Anta. waaw gaa nekk na daal jour bi nekk na ko kontaan mais def ci pas-pas parce que yéen yéen yéen si yéen la njëkkee. bàyyi seen temps yëpp ñëw passé man la jour donc man tamit du def lu dul tamit ànd seeg yéen. tamit mhm. loolu ma def daal et puis fi dem nii <laughs> moom ci gën parce que fi fekk sama kër suñu kër la sama kër la ya. ak sa sama mais fi may dem sama sama fi la commencé tout droit tout droit sa enfance. <laughs> lan fi mën a fàttaliku ndax fii dèjà dugg bi fi dugg nii rek gis naa ne affaire bi daaw waaw quartier bu am am am mbooloo la macha allah kon ça veut dire que fii am nga fi ay souvenirs yu garaaw ah, man nga ma ci mën a <laughs> expliquer boo xam ne fii war naa cee war a mën a ree ak sama gars yi bu tëdd ci suuf ah. <laughs> non ça non am nga am nga ñakul am dikal dikal dikal di waxtan. waaw waaw ça Ci lu fi am sama nit ma fi am bari na Wa ben ben ci soxla bu neex sax xol xale yi xol yi rek sa li rek souvenir ni waaw ndeysaan xol yi yépp ñu ngi ñu ko def ci koñ fi fi fi ñi ñëpp samay samay jeune frère lañ ñom ci taxawal taxawal da du wacc wa mais ande dafa mel excellence fief waaw egguñu suñu kër mais fii suñu koñ la li ma la wax sànq bu ñuy ñëw fii laa foowee la bokk fii mooy koñu indien ndeysaan ñun ñoo foondoo ensemble ñoom Cheikh Touré xale yu góor yi fii ñun ñëpp ñoo defandoo lépp fekk nañ suñu benn yaay mu teg table am coro doore fii lañ doon jënd kii mooy kii mooy coro doore kii mooy tata Xadi ndeysaan nga bëgg leen a ziar waxtaan ak ak moom def ak ñoom journée léegi seen doom ni mënu fee jàll te jaaru ci yéen waxtaan ak yéen yaay xam ci waaye Anta de wax dëgg neex yàlla Sine ant la ndax fii la juddoo fii la màggee mu war ñu yar ak teggin xeebul kenn nu mu meloon démb ak barki démb la mel ak ñëpp tey jii kon nag tey jii boo ñu waxee tey jii ñu wax ci moom dinañu sawar wax ci moom ndax xale bu baax la xale bu yërëm waajuram la xale bu am yitte la xale bu am teraanga la. kon Khady Baye Fall Anta nekk suñu doom ñu yar ko ci koñ bi àndandoog ay tàntam yar yaayam yaayam suñu rakk la ndax sama rakk lay maaseel waaye Anta nekk xale bu baax boo xam ne nekk si biir koñ bi yërëm mag ñi yërëm ndaw ñi nekk suñu biir xarabul kenn moom daal salaamaaleykum maaleykum salaam Anta ñëpp a koy yàkkamti gis. Anta loo yëg. ah dama kontaan ci neex. Ah, lu neex lu neex bu ma la wax fii laa am fii laa juddoo fii laa yoroo fii laa màggee fii laa foowee koñ bi fii laa foowee donc bu may romb munum fii laa foowee sama kër papa mi sama kër maam mu ngi nii fii lañu ñu foowee nekk fi ay xale ñun ñëpp ñoom Cheikh Touré ñun ñëpp ñoo fowandoo fii tey ñun tey du man ragalu ma dugg si fii kii sama doom la ñu ngi koy gërëm di ko sant fi mu bëgg a egg yàlla na ko fa yàlla eggal kontaan nañu ci moom parce que gis nañ ne baax rek la wane ci koñ bi ku mu romb ñun ñooy ay yaayam dégg nga te wane ñu benn loo xamante ni lu kii la daal waaw du neex daal. waaye sama dernier mot ndax am na nee na nu mu doon dundee ñun rek. kenn moomul kenn kenn jurul kenn. waaye loo won nit ki rek loolu la lay jàppee daf ñoo won yar ak teggin ak baax oyofal boppam waa gis nga waaye lii may neex man ku mel ni woon fii ci seen doom Anta mais liñ fi liñ fekk nag tey kontaan nañ bu baax a baax ndax gaa yi teeru nañ ko wan ni seen doom lañuy jàppale seen doom la ñuy soutenir seen doom maanaam kontaan nañ ci moom kon ñu àgg kër maamam xol leneen ak yeneen léegi léegi. anda ñoo ngi Arafat te exi nañ fi sa kër maam. Eh, légui ci ci bi waaw ñu egsi sa maam ñu ngi ñi eh, dañ ma seet ci woon wa LCS ak Sénégal TV ñoo ñëwoon set ci ma ñu ñew fi ci kër gi waaw. maa ngi leen di gërëm. kii ne kii musa musa la. waaw di la fay. man tam maa ngi leen di nuyu. seet sa doom. waaw Anta. waaw def ak moom réalité de la culture. waaw ngir waxtaan ak moom ci jaar jaaroon. waaw ci wàllu ñaw. waaw yaay tey lan nga ñu mën a wax ndax nee nañu yaay jur yaayam. waaw kon xam nga lu bëri ci Anta. waaw dëgg ndax yow lay woowee yaay. waaw dégg naa mais du woowee yaayam yaay. kon yow am nga lu bëri loo xam ne am xam nga ko ci moom. waaw loolu yaay kat mooy bëgg. loolu Anta day nekk man day sama cosaani baay ne ko sama cosaani baay da jaw faraag ma jaw xoor la. latir jaw ak ma jaw xewar mbaam ba jóg laaxu jullambo sara jaw yaasina góoli jaw yaasina ak yaasin kumba caam waaw ne ko mooy sama maami baay maami ndeyam itam mooy kumba ma jigéen kati saar tox na mbay ma paati soosu kumba jeey bandaak ba kaak bor saar maya ndóog ak caam samba ante jeey ma sanci ndar jeey di doomu njawar saar ak duudu saar ma jeey saar waaw sant ndar sañ fi ca diggu ndar gi waaw koo koy Anta Diaw mi sama maam waaw loolu dëgg la ah may tam ndar ndar piir ba laa billaay neex na man ndar ndar piir laa wallaay wax nga dëgg sama ñaari dooma ma seet billaay ñu bokk ko lépp na ba ndar géej ñu bokk ko ba ca dex ka foofu la sama yaay juddoo fa la cosaanoo fa la màgg waaw anta xamal tey waa Sénégal ci moom. lu ma xamal waa Sénégal jàpp njàmburam jàpp tranquille fu ma ko yem loo mu yem fa lu ma ko wax loola lay def lu ma ko tere loolu lay bàyyi lu ma ko ne defal lii mu def ko ba muy jàng mu ngi jàng bu wàccee ñibbi si toog ci man ba mu amatul jàng baatam mu daan ne ma man day maam bëgguma toog noonu rek te aw ma benn métier ma ne ko ah kon day dinaa waxtaan ak sa yaay. da di waxtane ya, man ne ko kon ko jëndal ay machinam mu dem def couturier ndax lu mu bon bon dal war mu tok rek te jàppul ci dara ndax bu la sa ndax bu la sa jëkke dee dimbalé ya to war nga dimbalé sa bop da ëlëg ak bu nga mëna dimbalé say mbokk ak sa fam kon dal yaay man suma suma suma waaw man limu fi jottu fekk sama xel waaw waaw yow dem nelaw waaw la allah ngay jaay waaw ndax suñu di jaay waaw di togg di ja di toggal mool yi di leen yóbbul di ñu di ko fay muy jaay jën di togg ay jënam di ko tëll di jaay ca ndar ji ñun loolu la xam loolu suñu cosaan ñun suñu cosaan liggéey rek lañu xam mooy anta yépp jikkoom a doy ci moom ndax xam naa ne amul du jël yëfi jàmbur du wax lu yoonam nekkul du dugg ci lu yoonam nekkul du wax lu mu xamul du wax lu mu gisul taraan kii la ne de jàmbur bu jàmbur bu dëgg dëgg dëgg la Wow, ah jikko bi ma jël lépp daal moom laa def ci moom Wow. ca dañuy wax réalité waaw maanaam ànd waaw am faasam fii waaw nan la ko dundee fii ah fii de ba muy gone ba léegi musuma koo gis mu def lu dul lu dul dëgg musuma ko def mu def lu dul yoon xam naa li ma la wax ci moom rek fu ma ko yem loo fa lay yem lu ma ko def loolu loo lay def lu ma ko bàyyi mu tere mu bàyyi du dem taxawaalu ji du dem waraalu ji du dox yoon mu war la dox du dugg ci lu mu war a dugg. yoon nga àtte àtte ci xeex. musul am. parce que mu musul xeex. man damaa dégg ñu am benn tur bu ñu ko tuddee ñu naan la tigresse. mu mu ngoog loolu de laa mës a xam ci moom. mais kon yaay ki am na lu la nëbbale. waaw kon de xanaa nëbbu na ma ah? ko kon de xanaa def naa nëbbu ah kon de xanaa def naa nëbbu ko waaye man de dafa naa liggéey bi daal mooy li mooy mooy mooy mooy xeexam. ginnaaw bi ngeen seetaanee pàcc bu njëkk bu seen émission réalité de ay kàddu kii di Anta ay kàddu yaayam waaye tamit ci ñaareelu pàcc émission bii di réalité de la couture daw yaram seede yoo xamante ni jugee ci ay magam ay yaay yoo xamante ni jooyloo na Anta te yi ñi di koy seetaan dinañu dem itam ci atelier am xool ni Anta di liggéey bërëgu liggéeyu kaayam soo leen bëggee bokk ci biir émission 125 52 60 bu leen réalité de la couture fii rek lay amee ci Sénégal TV amul feneen La réalité de la couture.